dañuy wéyal xibaar yi foofee ca réew tugal ca dëkk boobee di Espagne gannaaw ba ki nga xam ni moo di Ibrahima Diouf la ay mbokkam tegul bët juróom fan ci weerub janvier ci atum 2022 bu ñu nekk moom nag di Ibrahima Diouf laata ñu ko gëj a teg bët waxoon na ni day daal di dem laajte li nga xam ni moo dip ab payooram te jégbal li nga xam ni moo dip ab démission waaye niki noonu ba tey ay ko bët mi ngi xewee foofee ca Liberté 5 ginnaaw ba kii di Finan lañ fekk mu xaru ci biir néegam waaye nag yoon ubbi na ab l'enquête pour di waaj amal lii di autopsie ngir xam lu xam lu soxee mbir mile kawte foofi ca Touba Mbacké ginnaaw ba ñu dëppee ab néew bu ñu njort ni ab góor jigéen la ñu naroon ko denc foofi ca sëk yu bàkk ya njàkkare ak tiis dam na waa commune bu mbuur ginnaaw ba ñaari oto mbëkkante foofi ca Sindia bi lépp accident nag métti na ñu jot ci nemmeeku juróom benn nit yu ñàkk seen bakkan si lépp accident xibaar yi day woy ci langue politique bi ginnaaw ba kii di Mimi Touré fas yéene jébbal ab démission wam foofee ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ndiki alarba bi ñu dëgmal li ni mel nag li ni mel wàcc na foofee ci diwaanu Tambacounda di ab accident bu dox si diggante bis ak taxi ba juróom-ñaari nit jàpp juróom-ñeent yu ñu xayma jaare fa ñàkkee fa seeni bakkan njëkkër ak ci su foofee plateau ginnaaw ginnaaw bu ab milliardaire bu nekkoon borom yi affaire fàtte boppam foofee ci immeuble Ndiouga Kébé xibaar yi nag dinañ ko ndar képpee foofee ci Rosso Mauritanie ginnaaw ba douane sénégalaise bi tegee loxo ñaari doomu Mauritanie ñu yor ay mbalet bu def ay milliards yenn yi nag nekk euro yenn yi nekk dollar ñu nag mbaletu xaalis yi ñu yoroon dañ ko bëggoon jàllale dugal ko ci réew pour Sénégal laata polisu ndar géej di leen teg loxo fi mu tollu tembe nag yoon teg na leen loxo. ñoo nga foofee ci brigade bu Saint-Louis dinañ leen déglu niki alxamis foofee ci tribunal bu Ndar Géej mbokki internetu SENactu TV tey nag lii leen leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàttee di appuyé wu lii di cloche bi pour di mën a am suñu ay notification à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne ci seen chaîne YouTube SENactu la chaîne au cœur de l'information